Papa Abdoulaye Seck di doom ci eh, Idrissa Seck ñu des ko teg loxo eh, joxoñ ko baaraamu tuuma daal ci eh, mbiram trafic sinébar bi di cocaïne. Euh, trafic international de cocaïne euh, soxna Fati euh, suñu sukkandikoo suñu confrère yu immédiat xam ne ñoo njëkk joxe nouvelle boobu kii di Pape Abdoulaye Seck moom bokk ci juróom ñetti doomu aadama yi nga xamee ni teg nañu leen loxo ci coowal. drogue boobu ñu jàpp te mu toll ci fukk ak juróom-ñetti kilogramme ci euh, mbirum cocaïne euh, jamono ji nag mi ngi ci euh, loxol yoon. Euh, ba léegi ci xibaar yi fàtt yi euh, wax euh, ci jéye ji am fële ca yof apexi doon doomu France tudd Gilles Marchand moom dañu ko fekk néegam dañu ko fa faat te wax dëgg fa yàlla ko fa yàggoon la ba ñu tuddee ko sax lébu blanc mooy tubaab lébu moom nag dañ ko fekk ñu faat ko takk ko ba dëgër bàyyi ko ca biir néeg ba police nag jamono ji tijji na ci l'enquête lu lu ni mel tamit lu ni xaw lu xaw nuróog loolu la fekk fële ca Ziguinchor ak benn ressortissant français tamit boo xamee ni dañ ko fekk buntu ni euh, biir néegam euh, ak euh, buum ci baat bi maanaam mu mel ni ku pendre boppam mhm. waaye nag tijji ci enquête ngir xool ndax dafa pendre boppam wala dañu ko faat yeew buum ci baat bi Euh, Lamine Ba euh, dina ci indi ay leeral. Mhm. Euh, ci mbirum conseil des ministres démb tamit am ay poste de responsabilité yu bees yoo xamee ni. Mhm. fal nañ leen ci direction. Euh, ci direction euh, nationale yi fii ci euh, Sénégal bokk na ci ki di Seydina Omar Touré ñu yóbbu ko fële ca direction ASP mu wutu fa Salif Sow Mariam Soda Ndiaye moom ñu ko sécurité alimentaire et à la résilience ki di Babacar Diop moom yóbbu nañ ko fële ca CROUS mu maanaam directeur du centre régional des œuvres universitaires bu université Gaston Gaston Berger euh, bu euh, Saint-Louis euh, kii di Lamine Niang tamit moom la ñu yóbbu fële ca Soleil mu wutu fa Yaxam Mbaye Dame Mbodj moom Sojip la ñu ko jox Toussaint Manga Lonase kii di Aïda Mbodj ñu yóbbu ko DER yooyu bokk ci nomination yu bari yi nga xamee ni nemmeeku nañu ko démb ca conseil des ministre ba léegi Euh, ca nomination yi tamit kii di euh, Papa Cheikh Sadibou Sakho euh, Dimbira moom dañu ko tabb def ko ministre conseiller coordonnateur de la communication fële ca présidence de la république bu Sénégal soxna Fati. jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw 7h34 ñu tënk xibaar yi biti réew yi. ay aywa xibaar yi biti réew yi dañuy demaat ak Elimane euh, jëwriñu Slovaque bi nga xam ne des ko soxi bal hmm. ba daal ñu ne fi mu ne nii euh, mi ngi ci euh, guddi gu bët setagul waaw Robert Fico le tudd moom nag démb dañu ko dóori ay balu fetal ba ñu koy évacuer noonu di ko dugal ci oto bi yóbbu ko moom premier ministre Slovaquie jamono ji nag def nañu intervention chirurgicale bi wal ci moom ba tax way docteur yi nee nañu ñi ngi am yaakaar mu génn ci fële ca Nouvelle-Calédonie nag foofu émeutes ba léegi ña nga fay wéy loolu tax ba France sax dañoo déployer armée bi mu dem fa tere tamit TikTok foofu ca Nouvelle-Calédonie euh, yàqu-yàq yi nag bari fa lool te dara andiwu ko dul benn réforme électorale boo xamee ni dañu ko voté ca parlement ba indépendante yi bañ ni duñu ko dégg Afrique du Sud ñoom euh, li ñu bëgg euh, mooy cour Euh, internationale de euh, justice euh, ñaax Israël ngir ñu jóge Rafa bi nga xamee ni jàpp nañ na lañ fay def daal méngoo na ak génocide Fati ñu jeexale ko ak présidentielle américaine fële ca États-Unis ci débat bi nga xamee ni ñu ngi koy xaar ci diggante Joe Biden ak Donald Trump ñoom ñaar nag d'accord nañ seen biir ni dinañu débat ñaari yoon bu njëkk bi le 27 juin lay doon ci CNN bi ci tegu le 10 septembre ca ABC ndaw débat bu neex. Euh, Sleepy <laughs> Joe. Sleepy <laughs> Joe <laughs> Donald Trump euh, amul euh, il s'appelait Joe Biden Sleepy Joe ci seen élection yu mujj yooyu les campagne bi merci beaucoup Cheikh Tidiane mu nekkoon xibaar yi biti réew yi la météo c'est tout de